أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أمسات سياتين وأعوذ بك رب أن يحضرون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu ci kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla yàlla nañu yàlla dolli njub yàlla nañu yàlla di gindi teg ñu siraatal mustaqim noonu ñu koy ñaane ci surul fatiha suratul fatiha ihdina siraatal mustaqim siraat allazina an'amta alayhim xayril maxdubi alayhim wala daalin amin yàlla nañ ci yàlla xiir ñu ñëw ak yéen nag ci seen laayante biir ñëw ci waxtaan woo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sant képp koo xamante ni ab jullit ga bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni balli ko an nii walaw bi aaya na ngeen ma jottalil donte benn aaya alxuraan rek nga man nanga ma ko jottalil jotalal ma ko ci mboolem koo xamante ni rek doomu aadama nga bànni aadama ñu xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla suñ borom moo ko yónni waaye daf ko yónni ci mboolem xeeti yonent bu nekk yàlla daf daan seet wenn xeet rek ci xeet yi daal la ci yónni benn xeet woowu noonu nekkoon xeet woo xamante ni dañoo nekkul woon dañoo nekkoon ci naka su dul noonu daan jëfandikoo lu yàlla bëggul yàlla daal lay tànn ni la demal nga doxal ma loolu mu mel ni yont yàlla sohibu yont yàlla ibrahim ba ci yont yàlla muusa ba ci yont yàlla esa ñoom ñëpp comme ci man di doon yàlla dafa tànn lenn lu nit ñi daan jëfandikoo te bëgg ko mu tànn leen demal nga wax la ma leen li ñuy def bëgguma ko ba ci yonte yàlla lóot mi nga xamante tey jii li taxoon yàlla yónni ko ci la ñuy taxaw seetlu tuuti waxtaan ci te mu lëmbe jamono ji loo xaw a doy wax yam salaam nag mission yi yonent yi yoroon yëpp muy cent vingt quatre mille prophètes yi yàlla dafa jël yëpp daal ko koy jox ni ko nag yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma arsalnaaka illa kaafatan linaasi basiran wa nazira man yàlla yónniwu ma la loolu ci mboolem nit ñi waaye na ngay waare di xuppe waaye na ngay bégle yonent bi bind ci xaddis ni wax ci xaddis ni booy boo yestu bi jawaahiril kalim yàlla yónni na ma ci mboolem làng yi yàlla moo ko yónni ci mboolem làng yi képp koo xamante ni maanaam bànni xaadam nga yàlla yónni na yonent bi sallallahu alayhi wa ci yow yonent boobu nag moo ne na ngeen ma jottali donte benn aaya alxuraan rek nga man na nga ma ko jottali yontu saa salaam delluwaat wax ni man raha minkum man raha minhum munkaran kep ku gis ci yéen lo am lu ñuy sib lu baxul la ci diine wala lo xamanteni manam dañ ko sib wala yalla daf ko haramal fal yuqayiru bi yadihi bu dem nga doole joo meuna mën na nga jom nga dindiko na nga ñew nga dindiko ak sa doole sa moy dindiko ak sa lox fa in lam yastati su fekkee fa bi lisaanihi na nga ko na nga ko wax ci sa làmmañ jéebaane ko mooy reeteet wax ko ci kaw daane na soo ko mënul nag fa bi qalbihi soo ko mënut ni si sa làmmañ na ko na nga ko metti lu sa xol te loolu nag adama fa imaan moo gën a mooy bi gën a suufi te lii nga xamante ni mi ngi lëmbe àddina bi nekk loo xamante ni moom lañuy wax borom ñaari tur yi ñu koy tudde wàllu ngóor jigéen de mbir moo xamante ni yàlla suñu borom daf ko yitteel ba nga xamante ni yonent yàlla luut la jëloon yónni ko ca ña ko doon def nga xamante ni am na ci biiru njabootam ñoom moom yàlla luut ngoo xamante ni dañoo bokkoon ca mbir moomu bi leen ko aayee ñu lànk bi yàlla ñëwee di mbugal daf leen a boolewaat daf leen a boolewaale ñoom ñooñu ca biir mbugal ma da boolewaale danañ ci ñëw léegi incha allah ci kanam danañ ñëw tamit ci yi koy sabab ak yi nga xamante ni way jur wu ne war na ciy góorgóorlu ci njabootam ñu bàyyi ci xel bu baax a baax yàlla suñu borom lépp loo xamante ni maanaam ah, metti na ko rek wala mu nekk loo xam bëgg ko dana yónni ay yonent ñu wax ci day tax boo liggéey doo mën a lay ndax actuellement ni kenn waxul ni dégguma lu ñuy ni loolu dafa xaram muy ngóor jigéen bu góor ak góor di sëy xam ngeen ni sax alxuraan mi ngi ñuy wax ni am na ci doomu aadama yoo xamante ni ñoog bàyyima yi ñoo yàlla demaat ba ci ci biir sax mu ni am na ñoo xamante ni ñoog bàyyima yi ñoo yam ñoo daanaka ay bàyyima lañ rek am na ci ñoo xamante ni nag ñoo gën a sànku bàyyima yi ulaayika kal an yàlla nee na am na ci nit ñoo xamante ni ñoog bàyyima yi daan ne am na ñoo xamante ni gën a sànku sax bàyyima xam nga nit lan moo ko wutale ak bàyyi ma moom doomu li ko wutale bàyyi ma dafa mat a xam doomu aadama li ko wutale ak bàyyi ma dafa mat a xam li wutale nit ak bàyyi yàlla dafa wax ci suratu tiin wa tiin wa saytuun wa tuuri siiniin wa asala baladi al amin daani naa xalaxnaa insaana fi axsani taqwimin suma radadnaahu asfala saafiliin wa tiin wa dafa giñ ci yooyu tiin ak wa saytuun wa tóori ak giñ ci tóori siineen daal di nag li may giiñ mooy laqad xalaqnaa insaana fi ahsani taqwiim man yàlla maa bind nit ci melokaan bi gën a rafet mën a góorlu ba kawe lool ba raw malaaka yi mbaamu toll ak ñëw waaye mën naa ñàkk góorgóorlu ñàkk def ndigal yàlla yi suma radat naahu asfala saafilin ba gën a suufe sax ñi nga xamante ni maanaam ñoo ko ñoom la rawoon ñim rawoon sax mën naa dem ba gën leen a suufe moo tax borom tabaaraka taala daal di njëkk wax ne wala xaddi karam naa bànni aadama wa xamal naa fi bari wal baxri wa rasaqnaahu min atayibaati wa faddalnaahu ala kasirin man xalax naa tafdilan wa faddalnaahu ala kasirin nga xool loolu wa faddalnaahum mi man xalax naa tafdilan man yàlla maa teral doomu aadama bu ko neexoon mu ni bànni xar wala bànni bëy wala bànni gileem waaye dañuy wala xadd karam naa bànni aadama ñoo teral doomu aadama tàggatal ko li ne ci géej géej jéeri ci yàlla jox la ay xéewal lépp loo xamante ni maanaam nekk na ci àddina bi te mu dagan yàlla ne la jëlal may naa la ko oto yu rafet yeeg kër yu sell yi ba li nekk ci géej li nekk ci jéeri jéeg yëpp amal naa fi bari wal jox leen wërsëg wu teey wa faddal naa wala kashirin li gën a bari ci li ma bind yow laa ci gën yow yaa ma ci gënal mi man xalax naa taf di la waaye nag yàlla nee na nit ki mën naa ñàkk góorgóorlu ba moo bàyyi ma yi ñooy yem wala mu gën leen a sànku yow bàyyi ma lan moo leen wutale nit day lekk di naan di nelaw seen différence yéen ñaar mooy xel mi la yàlla jox moom yàlla daf koo jox bànneex te jox ko xel moom bàyyi ma yàlla jox na la xel yow doomu aadama jox la bànneex nga xamanteni ni fi nga xamee doomu aadama doomu aadama ak baye ma fi ñu wuté dafa bari nga tok jàngat sa bop ak ni la yalla bindé moy li yalla wax laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim ala na fu wax ni fa ahsana suwarukum yalla daf la bind melokan bu rafet waye lim la defal yépp defal la ngay noy defal la ngay gis defal la ngay deg defal la nga mëna wir. dox defal la nga wër yii yëpp bu mu la may am na ku ko xañ yàlla la jox ay tànk yoo mën a dox am na ko am dox pus yor wala dañoo dagg tànkam yàlla jox na la ngay gis am na ko mënul gis dafa gumba yàlla jox na la ngay dégg am na koo xam te ni mënul dégg ay noppam neexu yàlla jox na la nga mën a wax am na koo xam te aw làmmañam yàlla téye na ko kon santal yàlla mi la jox làmmañ jox lay bët jox la ay tànk jox la nga mën a dox loolu yëpp bu mu la ci fayeeku woon mënu ko ko fay bu mu la ci fayook woon mënu ko te loolu bu ko doomu aadama mayoon da ci laaj fayoor da ci laaj payoor bu nit moo mën dégg-dégg moom gis-gis moom tànk moom loxo da ci laaj payoor yàlla mi ko amee nag nee na santuma la dara yow nit lu dul yow jinne lu dul ngeen jaamu ma li ma leen digal ni ngeen ko def li ma leen tere ngeen bàyyi ku maa xalaxtul jinna wal insa illaa liya'budun maa uridu min risqin wa huwa an yut'imun inna laa war razzaqu zul quwwatil non la ko wax nga xamanteni neena nee na binduma nit ak ginne lu dul jaamu soxlo ma ma leen di jox soxlo may xewal soxlo ma dara lepp lu ma leen jox rek dama bëgg ngeen jaam ma dellowaat ma dellowaat ma lepp xam lepp ci man la jóge yalla jox la kàttan jox la wër ngay fanane mooy yalla ba sama set fanane lek nek ci lo xam ne neexul suñu borom ba sama set nga japp ne suñu borom dafa la sagane wala wërsëg wi gën a dolleeku ñu naan dafa am bayre yàlla daf ko jàppale déedéet sa nastadrijuhum min haysu laa ya'lamun ab jay rek bu la yàlla defal ab jay xam ni ay duma ay duma yu métti mu ngi lay xaar yoo xamante ni yow mi nekk ci loo neexul suñu borom rawatina mbir mi nga xam moo ñu tax a jóg mu mbirum góor jigéen nga xamante ni yonent yàlla lóot mi nga xamante ni yàlla daf ko ci yónni woon ba mu ba mu wooyee mbooloo mi nga xam ne ñoo nekkoon ci dëkk ba ñoom ñëpp woo leen neen ñëw leen ngeen bàyyi li ngeen def yàlla bëgg ko ñu koy saboote di ko reetaan lu ne ñu wax ko lu ne def nañ ko moom yonte yàlla loolu bi mu waxee loolu daan ni li ngeen nekk yàlla